jëmle ko ci député bi di Guy Marius Sagna ak solidarité euh, moom honorable euh, député moom nag gannaaw altercation boo xam ne am na ci parlement bu CEDEAO diggante député sénégalais bi euh, ak député bii di wuy ci turu Adjaratou Traoré di vice présidente bu parlement bu mu nekk instance sous régionale moom na fekk baax foofee ci diwaanu Côte d'Ivoire mu nekk kon coow loo xam ne amoon na ci diggante ñaari député yi ca parlement bu nu moom Seydi Gassama bokk na ci rek bataaxal ba mu daal di fësal ci réseau sociale bi di X mu ne nag député yu parlement wu CEDEAO nag euh, nekkuñ ay diplomate ñoom na dañoo nekk ay représentant wu ay peuple yu CEDEAO euh, te dañoo war rek wax jafe-jafe ak métit waaye dëgg-dëgg li nga xam ne mooy solo askan wi ñu représenté muy askanuk sous-région bi ak nag euh, état membre yi nga xam ne ñoo bokk ci kuréel gu nu mel maanaam daal nañu taxawee taxawu kuy sàmm euh, jafe-jafe ak ak yelleefuk askan woowee tax nag moom mu ne daal mu ne mu ngay soutenir bu baax a baax rek honorable député Guy Marius Sagna ci taxawaay ba nga xam ne am na ko fa muy réunion boo xam ne mu nga amee kon ci diwaanu Abidjan nekk foofee ca Nigéria euh, ci benn session parlementaire bu communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest ñu gën koo xam ci e a loolu nag kon foofu la daal akub altercation jugee ci diggante député Sénégal bi di Guy Marius ak député ivoirien bi di Adjaratou Traoré mu nekkoon rencontre parlementaire boo xam ne nag mu ngi doon am ci diwaanu samedi ñaar fukki fan ci weeru sulet atum 2024 euh, ndax ci intervention moom député sénégalais bii du Guy Marius Sagna dafa critique rek yenn ci ay chef d' état africain yi mu jàpp ne rek ñoom ñi ne daal daanaka ca la ñuy dox rek ci luy ndóolal Afrique lay doon maanaam daal dana fu nekk euh, surgap euh, tubaab bi ci Afrique nag nekk loo xam ne réew mu pauvre la waaye seeni dirigeant ñoo leen di woy di appauvrir ndax nag ñooy jël seeni ressources rek di ko jox ñoo xam ne rek euh, wutee nañu lool ak askan wi nga xam ne ñoom ñoo ko soxla loolu nag moo waral sax Afrique euh, di woy di ndool di kàddu yoo xam ne ay critique la yu député sénégalais bi nag daal di gàll ci ndodd ko yenn euh, kilifay yi africain tax nag ba moom député ivoirien biir wu ci Adjaratou Traoré am na xarlo nekk tamit vice présidente du parlement bu nu mel moom nag daal di tontu rek nga xam ne mooy Guy Marius Sagna coolo jub sax ba ab altercation daal di am ca seen diggante moom nag mu nekk kon soxna soo xam ne rek kàddu yooyee député sénégalais bi du Guy Marius Sagna yëkkati di dina nekk loo xam ne rek jàpp na ne kon lu ko naqadi la te faaw rek mu indi woon ceeg tontu. jërë ngeen jëf mbokk yi kon lii ma doon xibaar yi ci biir vidéo yeneen rek ci yeneen vidéo lay doon bu ci alante laataa loolu woy leen di like ci chaîne seen ku déggan rek ci page bi abonné gon nu ngay ñaan nga bu su ko defee dugal ci vidéo nga bokk ñu koy a jot cant ak ngërëm ñoom ne leen jërë ngeen jëf. Abonnez-vous la cloche pour recevoir les notifications. DKR 221.